qui la fait tagatom, discours tagatom li qui a ci discours bi moy Sen alal sen deret ak sen orma Aram na sen diggante ci wi la ko nit réputation nit vie privée nit lolou lu aramla, la nañ ko sàmmalante kenn ku nek politique débat d'idées contradiction d'idée là. ku neex nga ne d'accorduma ci sen politique mbay mi d'accorduma ci sen politique cham gi d'accorduma ci li ngeen def ci ressources naturelles bi éducation bi ñu tok débat problème amu ci mais xey rek ubbi sa internet di saga nit ñi lolu duñ ci am tolérance ak kenn a commencer par waa Pastef yéen ñi sen bop duñ ci am tolérance ci kenn

xulo kat xam nga lañu soxla soxla kat, jublu ci liggéey bi rek te dina ci ñëw ci deuxième partie bi may wax noonu ñu ko bañee ci kenn ku ne noonu lañ ko bañee ci kenn kuy wootewu moo xam da ngay bind moo xam da ngay yor télé kuy wootewu journaliste parce que impunité bi am fii nag dafa ëpp man journaliste laa rek liberté de la presse mun naa xëy bind lu ma neex ku ma neex ma bindal la loolu jeex na ci réew mi jeex na tàkk dem leen ngeen liir code de la presse article 13 xaw ma article wax na lan la ñu tere journaliste xëy dem jël ay affaire bind naan dañoo dàq général sàngam Sonko ko dàq dafa doon dafa doon xeex rebelle yi moo tax ay waxu ñàkk fu la ñu ne ñu woola ne la fan nga jëlee sa preuve nga naan benn site internet bu nekk delawaar xaw ma fan loolu jeex na ci réew mi su ko sàccee xaalis su Sonko reyee nit su ko defee naka su dul noonu journaliste bu ci am preuve na ko bindu def ko une bu rëy loolu c'est son droit loolu mooy liggéeyam waaye toog rek ne Sonko neexu ma wala jox nañ ma xaalis wala jomay neexu wala ma samba wala demba Dina bind luma ma neex ci mom suñ ma woyé mané liberté de la presse presse mënul am liberté bu keneen ci ñun amul président de la république sax amul liberté bobu président de la république mais ñu fal muy le premier des sénégalais amul liberté bobu au nom de quoi ab journaliste japp ni amna bobu droit du amna ñu fit lañu bindoon nañ ko bindaat nañ ko bindaat Merci. Ab